mbokk internet dakarnet point com comme ni ñu ko defee saa su nekk ah di dalal ah, suñu plateau ah, ki nga xam ne mun naa ne miin na ko mi père Max ah, nekk ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw Siteu alors ñu gis combat Papa Sow ak euh, Siteu presque trois ans mi ngi nii combat bi saa yu ko tëggee du am dem yàlla defoon ba combat bi taxaw mais aussi ni ko gisee maanaam violence la combat bi jeexee euh, amateurs yi fa nekkoon ñoom neen kontaanuñu alors kon duñ defee lu jox père mu ngi yokk bokk internetu dakarnet point com après ñu dëkk ak moom ci waxtaan bi ñu leen di di ziar. waa di la fay rek euh, di kontaan ci invitation bi di euh, kontaan lool ci toog ak yow plateau bu ko defee nga laaj ma ma tontu say laaj. d'accord mais di nuyu waa ñi safoo Dakar net yëpp nga xam ne site bu mag la. Mm-hmm. te li ma naan ñàkk ko seetaan dara wóoru ci. kon seetaan ko wër na fi. <laughs> alors mi ngi noonu kooku mooy père Max Mbargane ah, yaakaar naa ni euh, bi bi violence bi amee démb ñu bari ñu ngi ko doon xaar pour déglu ko moom tey euh, lan lañ mën a wax ci loolu kon alors lu ñu defee lu dugg ci waxtaan bi gis nañ euh, combat nu mu jeexee violence bi ñi ci bari naan Siteu moom moo tooñ ñi ci bari naan Papa Sow comme yow mi nekkoon stade lan nga ñu mën a wax ci ci ci détails yooyu noonu exactement. Siteu tooñ moom. ci yow rek laa ko dégg. mais gars yi ñoo koy wax maanaam. Euh, moom kay dañ naan ñu ànd ak Siteu. Mhm. waaye Siteu fa mu toog jógu fa. d'accord may kontaan nag ci comportement bi mu indi dimanche. Mhm. ndax danaan indi di daw di jubilé nit ñaam Siteu daa war a màgg. Mhm. jéem a doon kilifa jéem a doon affaire def affaire professionnel. mais gis nañ ne combat bi nangu na loolu dimanche. ba mu dugg see def ay bagaasam ci la la toog. léeg mu génn sarax ci ay turbine yi génn ay saraxam mhm. dellu toog bañ ko nekkaay tuus mu tuus mhm. bi mu tuusee ba noppi léeg mu dugg ci géew bi rek teg fans yi delluwaat toog mhm. fam toog jógu fa ba li am am kon tox taxawaayam démb dañ koy rafetlu mboolem lañ ko santoon def na ko alors ni nga ko waxee mais tamit dañoo bëgg euh, nga dikkalaat dañu euh, ci li li nga xam ne xewoon na dem stade ba lamb ji mujj am. ñu ànd ak Siteu nee nañ ni euh, moo tooñ ñu ànd ak Papa Sow nee nañ Siteu moom moo tooñ. voilà su boobaa question ah, dañoo bëgg a question leer na dinaa mën a li may wax rek mooy man li ma gis. Mhm. te gis ko Papa Sow moo tooñ. bi mooy moom professionnel li mu def ci làmb. Mhm. te c' était la première fois nag ma gis mu yor comportement bi ndax li moom xam ci moom xale bu yaru la. Mhm. mais ku toll ne xam làmb ju toll nii. Mhm. góor a soog am lum jël bëgg faa dem ñooñ téye ko yow nga jël ko daw dugg ci biir géwéli si tey. Mhm. te ba ngay dem da yor béjjën daw attaqué leen. Mhm. jote fa ak ñoom bañ dóor la ndënd. même ki ko dóor ndënd xam naa boppam lay protéger mais rafetlu ma loolu ndax ma sañoon kenn du gaañu. moom du gaañu ñu bëre ko ci jàmm. sama mbër am ndam bu leer man loolu laa bëggoon. mais xëy na incident yi maa ngi koy ñaawlu. ndax kenn yéenewul Papa Sow mu gaañu. ci lu bel nii même yéenewuñ ko sax mu gaañu ci biir bëre bi. rawatina mu gaañu ci biti ñu door kon ndënd loolu moom rafet rafetluwuma ko. mais comportement tam euh, Papa Sow xam nga dañ ko xabtaloon. mais musuma ci suma yor comportement boobu ci la. mais aussi ñun kër nañ jugee alors te biñ fa demee nee nañ ne euh, moom da doon dem jàll. ba léegi moom demu ci waa Cité mais gars yi ñoo ko attaqué xeex ak non boo xoolee image yi am na vidéo ma la woon léegi mhm. dafa daw dugg ci waa kër Cité booba amoon na beneen côté bu mënoon a jaar dem yoonam mhm. te moo dugg ci seen biir bi muy tuusi ci wetu waa kër Cité yi la jaar dem tuus te mbooloo mépp te laalu fa kenn mais bii moo dem dugg ci seen biir xam nga nit da ngay wax dëgg rek wala nga wax leneen mhm. bi muy tuusi ci waa kër Cité yi la jaar foofa dem tuus ba tuusam jeex ñu wañeeku jaaraat foofa te jotewuñ faa kenn dara mais bii dafa jaar ci bu bokkut ak jaar ba mu fa jaar ba muy tuus. mais dégg nañ ne Papa Sow daa am nu doon saraxee moom. non mën ngaa saraxee te jaar foofu làmb ku ne xam ne ne ay da am ay zones yoo xamante mën nga ko maytu mhm. ba doo laal kenn. loolu mu def boo ko si ko si te defoon jaar ci seen kaw ñu dal ci kawam kon moom mënoon a éviter loolu. Mhm. waaw. mais mais aussi tamit gis nañ ah, tëggkatu cité bi moom démb mu ne Papa dafa yor li ñu naan bëgg naa ba dóor ko ci bëtam ne loo tax yéen gaa yi di posté ba loolu noonu am ci. non dégg naa daa am na ku ñu gaañu ci seen biir mais ginnaaw man gisaguma leen. ñu am ñu gaañ ci biir ñoom ah, ñu gaañ ci waa kër si tey mais xam nga mbër bu demee attaqué géwal. Mhm. yor ngànnaay géwal ni ni ni ñuy tuutee poids yi du benn. Mhm. boo mënee défendre sa bopp da nga koy def kon ki dem fekki leen. Mhm. moo parce que bu def fekkitoon dugg ci seen biir te booba sax mbër tey moytu loolu parce que mënoon na bu doon ñeneen ñi la parce que géwél bi bu gaañoo làmb day am mhm. même góor a soog mbër la mais keroog bu woon làmb ji day am mhm. mais muy Siteu muy Papa Sow ku ci gaañu làmb ji doo am moo tax war nga moytu seet fi ngay dugg ak fi nga dul dugg mhm. làmb bés bu toll noonu bu ko Siteu defoon dañ koy wax da ngaa tooñ Papa Sow da ko def ñu ne ko yaa tooñ bu lay leer na événement bi am na ñoo gaañoo dañu pare rek bindal rapport saisir CNG. mais dañ ci am ay acteur principal yoo xamante ne bu ñu gaañoo événement bi day yàqu. acteur bu mel noonu nag war nga seet fi ngay teg sa tànk ak fi dul teg sa tànk. Mhm. loolu rek laay mais mais tamit père est-ce que euh, waroon def ci làmb ji def nañ ko. non xam nga. parce que ñoom ñaa ñuy bëre kenn ku warul euh, fexe comme ni nga ko waxee dem euh, dugg carrément ba lool noonu di ci am. non mbër day am xam nga loolu xam nga loolu. loolu ñu ngi koy indi rek ci biir violence bi amee. parce que ñu ngi naan fa géwéli Papa Sow yi ne waruñ fa woon a ne mais dama ne bi ñuy tuub si mhm. loolu ñu wax moo gënoon pour raison de sécurité mais bi ñuy tuus foofa lañ jaar te amul histoire mais nag ku ci ne sa géwél jege la ba boo jëmee ci moom doo am problème moo gënoon ci wàllu mhm. organisation mhm. loolu moo gënoon pour raison de sécurité loolu am naa ci ak ñoom mais dama ne ba ñuy tuus mbër yooyu tuus yëpp foofa lañ jaar ci kanam géwél yi si tey dem tuus mu jeex ñu delluwaat kon li tax nag mu yor kiyam daw dugg ci seen biir ba ay soir am fa ñëw yi ñëwatul benn ba muy romb di tuus ak ba mu ñëw di leen attaqué ñaari ñëw yi du benn c'est benn yoon la ci benn group mais ñaari ñëw yi du benn mhm. fa la jaar ak écurie yëpp dem tuus mhm. bi mu tuusee ba wax fa lañ jaaraat ñoom ñëpp dem toog seen cumikaay mhm. te histoire amul mais gis nañu Siteu bu mu toogee ci plateau bi père dane Papa bi ma sumee ko mu gis forme bu ma àndi la xam ne tey daw du baax moo tax mu yàq combat bi waa nag xam nga loolu moom. waaw na ko gisee surtout moom loolu la gisee te ñun loolu lañ gis. est-ce que loolu moom moo gis nañu moom moo bëggul woon combat bi am. mais père bu ko bëggoon dana gérer. mais père Papa Sow Papa Sow bu mu gaañu parce bi mu jógee Fass. waaw écurie bi mu jógee Fass. Mhm. tàmm nañ bu ñu amee bés bu ñu xalaatee ne du baax ñu fexee lu ko yàq loolu day am. kon da nga yaakaar loolu dañoo gëm rek gis na ne baaxul mu yàq làmb ci ñun loolu la ñu gëm. mais est-ce bu yàqoon Papa Sow ngi gis perte mi ngi nàcc mais teewul mi ngi taxaw ci géew bi ne day bëree. gars yi xam nga daa am loo xam ne daa am loo xam ne sa décision la yow. daa am loo xam ne corps médical bi moo ko géré. Mhm. buñ gisee ne mënatuloo bëre euh, ñu ne mënuloo bëre. Mhm. saisir CNG de lutte. sa damay bëre dootu compter. mais père yaakaar nga ni mbër préparé combat am presque trois ans. mu def lu jour stade bi ñëw fees dell ba dara desul lu dul bëree ah, ñu taxaw ne diw ah, ñemewul ki muy bëreel wala dafa xam ne tey bu bëree day daanu ba tax mu yàq. combat bugguma tudd tur mais làmb amoon na fi mbër gaañ boppam ci biir làmb ji ngir bëgg a bañ a bëre bugguma tudd mbër moomu. loolu lan la dafa ragal wala dafa. non da ngay xalaat ni dañ lay wax jekkoo nga bañ defet nga fexe la am. kon sa analise père ni nga gisee tey da nga jàpp que ni Papa Sow kon moom démb pare moom bu ñu bëri woon dañ koy daan bu ci yàlla andee xalaatoon nañ ne keroog kii maye ndam ñun la àndal muy sunu borom. mais kon est-ce que géwél bàyyi fexe bu seet. gars yi non non xam nga problème mooy dama ne ki riir huit la yor ngaa naay yow su ma riiroon huit si la ak ëppee yor ngaa naay boo loo yor di nga ko dóor da ngay sa bopp mais ah, am na nu mu mais mais man ci li ma jàpp ñoom mën nañoo analyser comme ñoo yéen nee nga comme yaa ne sa site mbër bu jàppoon Papa Sow doxee daan mën nañ ko négocier rek bañ dugg ba ci biir ku mën sa morom duma. te yow comprendre li ma wax. réalité am. Mhm. daa am zone yoo war a jaar yoo warul jaar. Mhm. am loo boo fa jaaree mën naa yàq. Mhm. yow acteur principal bi leer na boo gaañoo du am. même man nañ laa xaañ day seet foo war a aw foo warul aw. bu doon site ñu ne ko bul jaar foofu. bi Papa Sow duggee médecin yi di ko seet. si te dugg ñu ñoo ko ne génnal. ndax booba ñoom franc ñim ànd ak yëpp dugg nañ mënoon nañu si Papa naat ci ñu dem attaque si te boo encadré nit. da nga mm-hmm. war a seet. Mm-hmm. encadré ko bul bàyyi benn faay. mais xam nga boo àndeek mbër doon fan sam wala mbër mi ci boppam moo yor baat mooy diriger. Mhm. mooy seet li mu bëgg a def mu def ko. Mhm. ma day day day des lu bëree bëri. waaw mais mais après combat bi peut-être gis na nga nga daw euh, di wax ak arbitre yi xaw ma waa CNG. ci li ñu gis non ah, waaw arbitre dama wax ak ñoom. waaw xam carrément la nga doon wax. non la ma doon wax décision bi ñu jël laa àndul. dama ne dama ne saaw coow amee. Mhm. am na ku fóote. ginnaaw ba ki yàq ci Papa Sow la jógee kon waruñu def. Euh, sans verdict dañ ñoo hmm. waroon jox victoire. loolu laa doon wax ak beneen bi. waaw dirigeant wu Papa Sow bi laa doon waxal muy ba hmm. te comprendre na. dafa wax ak man façon bu ma bu ma d'accordul. Hmm. mais moom nit ku baax la. mu nangu ne waxin bi erreur la. ñu saafoonte ma ak moom. mu jox mais mais père am nañu analyser am nañu analyser nañu ne euh, kii Papa Sow. ah am na ñi nga xam ne ñoo ñi nga xam ne ñoo analyser ne Papa Sow comme moom lañ gaañ bu fekkoon décision day am moom lañu war a jox victoire bi. kat moo ko gaañ. waaw Siteu bi mu gaañoo. contre guy gi. waa mhm. këram gaañ ko. Mhm. mais est-ce que waaw waaw doo déglu dama danga maa ngi laaj. li ma ci xam xamoo asaka <laughs> waaw xam nga. Mhm. làmb moo doy waar da ngay tooñ sax bëgg a protéger sa bopp ci tooñ bi nga tooñ. mais ku ne xam nga ne li Siteu def. li Papa Sow def bu ko Siteu defoon làmb ji dina am. bu toogoon xam boobu lu muy def yebale. teg ko ci yoon. ñu bëre kon loolu dafa am. pay li nga wax mun nañ ko dégg mais ñun ñu li nga xam ne ni dafay dafay xaaw a tee suñu xel mooy que ni victoire dañ ko war a jox euh, Siteu non dama ne verdict saa wu làmba amee waaw day am ku fute ñoom dañ ne ci texte lañ sukkandiku waaw d'ailleurs ñun bind nañu recours ba mu ñëwee gëdd arbitre bi yow li ma tontu arbitre tontu ma loolu arbitre bi la la tontu lam ma tontu mooy mhm. médical par ñu te kon sans verdict la ñuy def mais bindal recours Mhm. maa ngi dem di bind recours yow nga bëgg maa tontu kii wax ci mbedd mi. waa mais man li may def ma xam ko maîtriser texte. Hmm. tey bind naa recours beneen bi CNG convoqué nañu. yéen ñi waaw fi mu ne suba duñ fay suñu reliquat dañu convoqué. convoqué nañ ma man mi ménager bi. Mhm. convoqué président équipe bi convoqué site. convoqué convoqué jiili mi tambour major bi mercredi 10 heures CNG. mais père est-ce que combat bi. nekk nekk presque tamit ñu xaar ko presque trois ans euh, saa yu amee de euh, muy yàqu est-ce que tamit yoon la tamit père ci ni ko nit ñi analyser tey jël victoire bi donc ko jox ci te te jël amul dara amul. non xam nga ñaari rapport yi génne ko booba mbas mee dal ci réew mi. waaw loolu bokkul ci làmb ji. mais mais li xew démb. waaw Siteu contre Gouye Gui bi mu xaañoo. Hmm. dama ko ne nëbbu ko nga bëree. ndax sa kër ñooy xeex ak force de l'ordre bi mënoo muñ ndax booy nga bëggu ñu bëggu ñu daanu ci stade amitié. Mhm. nga daw di attaqué alkaat yi ñuy sànni far mu dal la. Mhm. soo bëriwul. alors père fi nga wax ci booba moom mooy naaj waaye déglu rek. Mhm. ma ne ko boo bëriwul. dañ lay suspendre te doo fayu. mu nëbbu ko ñëw bëri mhm. moo tax Siteu loolu doon leeral ci mhm. plateau bi d' xam nga bi ñun euh, Siteu bu mu tooy plateau bi neen loolu dal na ko contre Gouye Gui mhm. mais comme euh, sang bi Papa Sow génne nu mu bëree est-ce est-ce génne woon na kii boobu noonu génne na lu eh. raw bi mu xëyee suba ñu ko xool dañ ma mere man dañ koo ne père mag soolu ma woonu nga mais boobu bu doon waa kër Papa Sow yee ko xaañ damay dem wane blessure bi mais ginaaw ba waa këram. ñoo doon mhm. xeex ak alkaati yi mu ñëw ku dal ko su bëriwutoon dañ ko sa waa kër la xaañ yaa gaañ sa bopp. Mhm. du bëre te du jot reliquat mais blessure ba moo gën a métti bu Papa Sow. mais ñun bu ñu demee seeti ko Papa Papa Sow euh, seen euh, ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ak ñi nga xam ne ñoo ñu woon ci làmb ji nee euh, ñoom dañ dañ dem ci yoon. waaw loolu am nañ ci droit. waaw parce que nee na euh, li daal Papa Sow tey moo nitee jëree leneen. non dëkk bi dëkk yoon la mais dégg naa même xale boobu ñu gaañ ñoom it am na ci ñu gaañ ba ñoom dañuy porter plainte waa kër na ci booy yu gaañu. Hmm. dañ ne bataille rang boobu ñu def ak ñoom moo gaañ booy xam nga ay mbër xajuñ ci ay géwal yu tëgg nag am na ci ñoom yoo xam ne bi dañ ay médical dañuy porter plainte loolu yoon la. Hmm. loolu moom leneen la koy at loolu day génn CNG loolu moom day génn CNG mais ñee dañuy dem ci yoon de mais mais mais ñu gis ni. loolu loolu loolu nag bataille juridique la loolu beneen affaire la waaw loolu moom. Mhm. bokkut ak léegi may laaj. mais mhm. ginnaaw ba da nga ma wax loolu nga jëlee foofu dama lay naa la mais mais aussi comme père ni nga ko waxee noonu tey jii euh, ko comme mun naa ne contrat bi jeex na parce que ñoom ñëw nañ ba def li ñu war a def yëpp euh, suñu noonu combat bi noonu lay ñu pareewaatoon joxaale ñu ne la kaay pare na pour bëreewaat ak Papa Sow. daa diis dañuy wute leneen. combat bu la téye trois ans da nga naan yàllaa la yàlla namm ci ñun sans verdict na na ko ci ndam defal ko jàmm ndax moom xale bu yaru la si tey dem wite leneen mais pour si tey Papa Sow moom. ko euh, débat boobu l' na trois ans da dem witi leneen ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla defal ñu jàmm. Mm. mais page boobu tourné nañ ko. d'accord ci gàttal maa ngi lay kontaane <laughs> jërëjëf alors waaw mbokki internet euh, dakarnet euh, point com comme ni ngeen ko doon defee saa su nekk yéen doon laaj Père yaakaar naa ni euh, jot nañoo waxtaan ak moom lu mu ñu wax tamit mu mun nañ mun nañ ko dégg aussi du ñu defee du du joxoom tàggatoog mbokki internet yi di koy seetaan di leen xamal leen que ni minute yi ñu mayoon jeex na waa di kontaan ci yow rek gis naa ne booy topp dara bëgg ko doo deltu ginnaaw xelu gay na ngay daw ñu ngi kontaan ci yow <laughs> di wax nag lu ci rafet borom bi lu ci ñaaw jaam yi xeebu ñoo bëggoon mu rafet mm-hmm. di ñaanal euh, promoteur bi jàmm. di ñaanal Papa Sow jàmm di ñaanal Siteu jàmm. bi may tëjee mooy violence bi nit ñiy def ci làmb ji. nañ ko bàyyi li ma bëgg mooy ki làmb ñor mu dem ca làmb ja. ki làmb ñorul mu dem doxi soxlaam. mais làmb jeex ñuy agressé di sàcc ay alalu nit ñi di ko siif. Mhm. loolu baaxul. te dañuy xaar rendez yu mel noonu rek ñu profité ci di yàqal mbër mi. Mhm. te loo ci def ñu def ñu teg ko ci deru mbër mi. Mm-hmm. violence bi daal ñun ànduñu. ànduñu quoi ñu ngi koy ñaawlu. jërëjëf yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ñu ngi lay kontaane jërëjëf. jërëjëf alors mi ngi noonu euh, père Massou Mbargane dara loon tey moom mu nekk suñu père à chaque fois bu ñu ko soxlaa rek moom daraan du dem fenn fi ñun lay ñëw waxtaan ak moom li nga xam ne ni euh, moo am aussi te li nga xam ne moom mooy actualité euh, di leen jox di daje ak keneen aussi di gërëm sama technicien yi ku ci mel ni Yankoba Abdourahmane ak biisu ñu leen jaay jëfal bu baax a baax di leen wax di daje ak keneen incha allah jaay ngeen